loolu it nga toppatoo ko président daal yal na la yàlla jàppale ne ku yàlla jàppale nga dem yal na la yàlla jàppale yal na yàlla dolli jàmm ci réew mi amin yal na yàlla dolli jàmm ci réew mi amin ne këru diine nit ñi déglu nañu leen ñi ngi wax ak ñoom ñi ngi wax ak nit ñëpp ne da naa nit ñee dëgër bopp loo wax jox leen ñu yëkkati teg fale waaye bu mu taxit nga noppi ndax waru gar la nit ki waxal nit ñi ànd ak ñoom ci kàddu ak ci xalaat ñi ngi lay sant bu baax ne mi ngi ñaan yàlla jataay bi yàlla bu mu nekk sunu mujj daje amin ne gàmm gi ñu jëmit incha allahu te ñu nekk ci yàlla bu mu nekk sunu mujj gàmmu amin ne tànk yi nga yëkkati yaag ñi nga àndal yàlla ci yàlla def tànk mu nekk tànku barke amin yal na yàlla suturaal la jàppale la nga am ndam attendre sa objectif yëpp amin yal na ko yàlla def réew mi yal na yàlla boole réew mi ommat ba fa réew mi war a jëm yàlla rek a ci mën dara yàlla na ko yàlla def ne Seydi Hadj Malick wax ji gudd na waaye guddul émotion la doon waxee ak it boo amee kilifa mu ñëw sedd la ne booy wax ak moom da wax ak moom ci daye ba mu tollool boo ko dégloo ba mu teeral jàngal na la lenn ci histoire kër gi loolu nag dafa mel ne sax kàddu yu gudd la waaye nit bu jógee ba ñëw ci yow toog fi nga toog nga bàyyi nga bàyyi gannaaw yépp ñëw fii dañoo war a wax ak yow ci ni war nañoo wax ak yow loolu nag moom waxu wolof la waxu wolof la mën na gudd waaye nag dafa laaj nag waxtaan bi yëpp nga anal ñu analyser ko ba xam wax ji lan la doon wund point par point ne ci lay amee njariñ ne ku dégg seetlu xam la ngay seetlu ba xam loo ci gis loolu moo war waaye daal ci turu njaboot gi yëpp ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm ne sa gouvernement bi nga nekk am nañ ci njaboot gu bare njaboot googu nag ne xam naa ñi ngi ci seen biir di yëngatu léeg mu am ci koo xam ni dana laaj intervention pour ñu ñëw wax ak yow ci kaawu kooku nga xam ni mi ngi ci sa biir te mu laaj intervention waaye nag na nga yëg ni lu intervention ba ñëw ñëwit duñ la teg mukk loo àttanul duñu la tegit lu teguwul ci yoon incha allahu lu raisonnable rek la ñuy nar a yow incha allah waaye itam nag dinañ topp ci sa gannaaw it di la pousse pour nga gën a avancer rek ndax ñun loolu lañu moom pousse ba nag loxo bi ñu la nar a nag mooy loxo yàlla tàllal yàlla loxo yàlla ni yàlla yàlla na nga may jàmm yàlla na nga may koom koom goo xam ni réew mi yëpp mën nañ koo jëfandikoo yàlla baax na te yàlla santaane ni nañ ko ñaan yi ne Seydi Hajj Maalik wax na ko léegi yàlla ni nañ koy ñaan boo ma fi bàyyee diwuti keneen génn naa ci yow ad'uuni astajib lakum wa ida sa'alaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daa'i ida daani falyastajibu li wal yuminu bi laallahum yarshudun ne su ko defee nag loolu rek moo fi am yàlla kese moo fi nekk yàlla mooy dimbale jaam yi moo leen di jox lekk moo leen di jox naan moo leen di faj bu ñu feebaree ne dañu wax naan docteur sàngam moo ma faj docteur du faj waa kon bu docteur feebaree ku koy faj no moom moom kan lay faj moom bu fekkee dafa feebar ba waaw dootul mën a faj kenn ndax feebar na ndax feebar na ne kon nag yàlla jooju kese moo fi des nag moo fi nekk yàlla rekk fi des moo fi des loolu lañ fi fekk ci loolu lañu tënku ci la ñu dund ci lañ fas yéene nekk ba de incha allah yàlla yàlla na yéex euh, président xalifa bi nee na yàlla na la yàlla jàppale amin nee daal mboolem ministre yi nga àndal ak sa cabinet kilifa yi nga àndal yëpp mi ngi leen di gërëm te di leen ziyaara nee mi ngi gërëm itam kilifa yi amee région bi dale ko ci gouverneur dale ko ci préfet ak ñu topp ci ñoom ñëpp di leen sant di leen gërëm seen taxawaay rafet na ne surtout nag ci préparatif gàmm gi ne daal wax dëgg yàlla taxawaay bi rafet na mat na ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf ne daal président mi ngi lay ñaan daal nga gën ñoo bàyyi xel rek ne nga bàyyi ñu xel nga bàyyi ñu xel nee daal dafa la junj rek waaye fii du palaasam nga bàyyi ñu xel daal ñu nit incha allahu ñu bàyyi la xel jërëjëf jërëjëf ne ne ñu ngi lay jéggalu nag ci temps bi ñu jël yëpp bokk yi xalifa bi nee na yéen ñëpp mi ngi leen di jéggalu ci temps bu yàgg bi ne daal wax fi nga war a waxe ne loolu moom daal dëgg-dëgg <laughs> fi nga war a waxe daal nga waxe waaw fi nga war a waxe rek nga waxe ñun fi ñu war a waxe la ñu war a waxe titre bu ñu mën a am ci réew mi yow mii yow la yàlla def ngay président de la république ñun nag ñëpp ngay gis ni ay républicain lañu mi ñu ngi ci sa suufu kilifteef dañuy wax ni yàlla ju ne waaw waaw dañuy wax naan malaaka mu nekk am nga malar ci yow nag kon ñun bu ñu dee ay malaaka yaay suñu malar ci ndax yaay suñu président de la république loolu la yàlla def loolu la yàlla def nee nga nangul ñu ko nag nangul ko yàlla nangu ko ñu ngi ko bokk ngir sa bopp yal na la yàlla jàppale amin yal na yàlla yombal yal na yàlla dolli sutura dolli jàmm it ci réew mi ne tudduma kenn ñi mu bëggoon a tudd ñëpp ci famille bi Seydi Hadj Maay tudd na leen ne sëñ Maodo tudd na ñëpp ne Cheikh it man mi tuddoon naa ñëpp présenté leen te ne ñëpp mënuñoo waxandoo waaye ñu wuutante rek moom mii li muy wax ni nee na ne su doon ci leneen ne fokk mu tàgguñu ñun ñëpp ne daal moom dafa gëm consertation ne sunu maam moom lañu toogal fii gannaaw bu yàlla ak yonent bi wéyee moom daal sunu maam la fi toogal te ñun ñëpp bokk maam mi moo tax mu yëg ni concertation mënul ñàkk mi ngi leen di tàggu jox nañ ma kilif téef waaye nag ñi ma ko jox ñooy sama kilifa ne ci wàllu bi ëpp importance ndax wàllu yàlla ñun ñëpp dañuy yaakaar yàlla jaarale ko nag ci sunu maam ne loolu santaane yàlla la yàlla ni bu ngeen bëggee agsi ci man wut leen intermédiaire ngeen jaar ci moom ba agsi ne fekk ku yàlla defar ba noppi nga xam ni màndarga defaroo ngi ci moom nga jaar ci moom pour mën a àgg ca yàlla ne loolu daal moom la nekk fii ci xadra bii moom daal lu ñu ko mën a jox ci baat wala cër